France ak États-Unis ay partenaires privilégiés ci réewum Sénégal partenaire bu nga xam ne daal seen loxo fu na lay dugg ci wàllum politique ci wàllum koom ak li nga xam ne daal seenu teewaay ci dëkk bii loolee kat gis ne kat saa su ne daal mu ngay gën di wéy waaye itam fexe ba réewum Sénégal gën a ñoŋ waaye itam ci lëkkaloo bi nga xam ne moo dox ci diggante Sénégal ñaari réew yi waaye ñoom ñaar ñu ngi ubbi seen gët te ko fi suñu réew loole ñeel élection présidentielle bi nga xam ne moom lañu waajal ci atum 2024 waaye nag seen position mi nga xam ne ñaar dëkk yi am nañ ko maanaam di sàkk ci Macky Sall mu teg ci suuf li nga xam ne ñetteelu mandat bi seen position boobu daal bett nañu bëri ñu bëri yaakaaroon ne kat ñoom kat daan ko jàppal tànk loolee mujjul am ndax ay fan a ngi nii ñi nga xam mooy yéenekaay yi ci réew mi ak ca bitim réew ñoom saa su ne rek ñu nga yëngal cloche diplomatique bi nga xam ne dafa delluwaat ci léeg-léeg ay xibaar yu nga xam ne dañ koy daal di fësal ne kat ñetteelu ci Sénégal daanaka lay raam la jëm waaye am ci ay yoo xam ne ñoom d'accord ci ñetteelu mandat bi loolee ñu jàpp ne daal ay waxi picc yoo xam kat fu ñu koy jëlee kenn xamul la jóge waaye tamit ci ñaar réew yooyu daal li nga xam ne mooy seen intérêt bëgguñu kat mu naax saay ndax saa su ne ña ngi koy fexe daal di koy teg seen fukki yoxo kon bu fekkee ne Sénégal wala sax ci Sahel nekk na ay dëkk yu nga xam ne daal dafay nar a tàkk lu ci mel ni Mali Burkina ñoom d'accorduñ ci ndax gis na ne kat diggante France ak am nañu ay intérêt yoo xam ne kat dañoo bëgg ko yiir di ko gën a aar la nga xam ne tamit moo xew Sahel gis nañ ne loole kat ab crise bu nga xam ne baaxul ci ñoom ndax li nga xam ne moom lañ fa am kat moo nar a nërmeelu kon France ak am nañ droit de veto bu nga xam ne ci ñetteelu seen loxo ma nga ca biir kon fekkee ne nguur moo fi bëgg kat euh, weñ joxe Sénégal yi ne dina jàll par nee na loolee duñ ko seetaan Sénégal yi nag moom di bëgg a tuutal seen bopp ci loolee kat la ñu war a génn ndax bokk na daal ci ñàkk ko fay du nga xam ne du am benn cër boo xam ne da leen koy jox ci tugal kon nag africains yi ñoo war a comprendre ne ne africains yi nag moom war ñu am benn complexe ci gouvernance politique charte bi nga xam ne ci 1767 ci lañ ko daal di loolee ñeel révolution bi nga xam ne moo am ca Fuuta jaarle ko nag moom amut lenn lu nga xam daal war nañ koo mën di jéggaani lépp a ngi fi kon nag du France du États-Unis ñoom du ñu wax la nga xam ne moom la ñu war a def ci askanu Sénégal ci la dellu te ndax ñoom seen bopp ñoo xam li baax ci seen réew kon njiitu réew mi di Macky Sall war na comprendre responsabilité bi nga xam ne kat mu jël fii dana baax kon dafa delluwaat ci électeurs yi ñoom ñu tànn waaye itam ca ka neex ak seen njiitum réew ak ka nga xam ne moo leen soob ak ka nga xam ne tamit moo leen ëppal confiance France ak États-Unis ñoom dañoo war a respecter souveraineté askan wi kon loolee nekk nay keno yi nga xam ne moo jaar ci wàllum coopération bi nga xam ne moo lëkkale Europe ak Afrique rawatina ci dëkk yi nga xam ne ñoo am seen indépendance